dans le milieu Tahirou Sarr lañ ko gën a xamee moo fi yónnee ambulance médicalisée bu bees ne hôpital bi nga xam ne moom la ñuy def Agnam mu nekk hôpital Bosoye Fuuta a bokk comme président def na lii bi jour bu gën a rëy bi nii wax dëgg yàlla moom mu nekk première personne moo coopéré avec notre hôpital devant le sous-préfet délégué du chef de l'État devant le directeur général de l'AGET bi nga xam ne moo tabax ak man mi maire commune dëkk bi hôpital bi nii gis ngeen ko gis ngeen oto boo xam ne ne am na borom te gisu te borom ñëwagul daanoon nañu gis directeur bu ñu nommé ba pare di jooytu man directeur laa amaguma oto mais oto boo xam ne ne ñëw na ba taxaw dama ko yóbbu sama kër gaaree ko en tant que maire gaare ko foofu mais amagul borom mooy lan daxiru ne comme hôpital kii bërëb bi nekk na hôpital ala kulyaa leen dañ koy utal directeur man dinaa jënd oto boo xam ne ne mu nekk véhicule de fonction bi ñuy jox directeur hôpital bi nekk fii Bosse bi nekk fii ci añam mooy boo xam ne ne dañ daan dan directeur di joytu amuma oto mais oto boo xam ne ne ñëw na moom mooy joytu amaguma ku may dawal loolu kenn mosu ko ko gis mais lépp nag ci ngir yàlla ak yonent bi ak suñu diggante ak moom ak mu bokk fii tamit lii mu rafetlu ko lool ci lii li tax mu am ak muy jàpp ci lépp lu président di def ci lu baax bëgg na ci indi ndimbalam bëgg na ci indi appui ba askan bi xam ne jege na leen te moom du acteur politique il est dans le milieu du développement et inaperçu loolu moo tax mu nekk résultat doo gis sax mu teew dafa yabal ñoo xam ne ni dañoo sëkk ak moom rek ñoom la yabal boole ci nag loo xam ne ni une lutte bu am solo nit bu defee danga ko koy wax bu ñëpp dégg ko loolu mooy lu am solo nag def ci def ci boole def ci boole trois bureaux complets malgré directeur bi mu ngi équipé tout l'hôpital trois chambres à coucher loolu nag dañ koy yóbbu ci logement yi nga xam ne ne wax dëgg yàlla nit ñi ñëwaguñu boole na ci cinq cent paires pendi boole na ci salon d'angle bleu boole na ci trois petits tapis boole na ci table basse boole na ci cinquante sept seize visiteurs boole na ci ambulance médicalisée bi ma bi ngeen gis léegi benn corps bi yaay mu ngi si yoon mi di ñëw nekk fii encore boole na ci voiture de fonction di directeur de l'hôpital boo xam ne ne kenn xamagul ku muy doon boole na ci vingt poubelles de cinquante litres loolu la Tahirou Sarr def nit nag bu defee lu baax da koy woon sa mbokk woon ko sa askan woon ko réew mi président de la république ku def lii lu baax rek président nga ko defal askan bi nga ko defal ndax moom la yàlla dogal mu jaboote askan bi yëpp loolu nag ñu ngi ko ciy gërëm ci sama tur en tant que maire su préfet nekk fii délégué du chef de l'État directeur bi nekk fii te tamit jëloon disposition yëpp pour équiper yëpp mais lii aussi bu ñu ko taxiru defalee ñu nëbb ko rek kenn bañ koo gis wax dëgg yàlla duñu ay gor te nag bu la defalee lu baax demuñu tamit di ko ñaan demuñu woo ko ñaan ko je moom moo ñu woo mu ne bëgg naa participer ci développement gox bi comme président de la république yabal na joxe ndigal joxe ak yëpp ànd ak directeur AGETIP ànd ak yow hôpital bi ngeen samp ko ci biir Bosse ma nit bëgg naa ci indi sama ndimbal kon nag wax dëgg yàlla quelqu'un la koo xam ne il est modèle ci ñi def lu baax. Euh, exemple la joxe parce que xëy na noon na koo jël dugal ko feneen mais euh, xam na ni fii la bokk am na lu ñu yëkkati loo xamante ne population bi yëpp ko bokk mu indi ko fi indi ci participation bi euh, mu ngi ci aussi profité di. jox un exemple euh, képp koo xamante ne doomu Fuuta nga nga xam ni euh, hôpital bi war nga ci mën a participer ak participation bi mu mënta nekk soo ko indee defal nga ko Fuuta yëpp comme ni ñu koy waxee dimension hôpital bi du rek fii ñu ko def mais hôpital boo xamante ne képp ku nekk sax ci Sénégal wala ak ci sous-région bi mën nga ci mën nga ci bénéficier wu. xam nga dafa am loo xamante ni bu jiitoo rek xel day dal xam nga entretien engagement d'abord ak volonté moo koy yor. te ma jësee engagement maire bi nu mu ko amee ci gox bi ni mu fonkee hôpital bi ak yeneen infrastructure yi fi am c'est sûr et certain que dina bokk ci hôpital yoo xamante ni ñoo gën a baax système d'entretien et de maintenance ça je suis certain